dama koy wax ñëpp di dégg bu fekkoon ne toog naag président dama koy wax du ma ko wax ci ay rajo toogu maag moom damay jàkkaarloo ko àdduna bépp wax ko parce que li may wax toujours sama gëm-gëm lay doon